وقل إني أنا النذير المبين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki jullit yi tedd yi fi teew yëpp bokki taalibe yi fi teew yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ci bis bu tedd bii di ndokkee ñëpp ci ndigalu ki nga xam ne jataay bi ndigale ma ak ñaanama kàdduma xalaatama muy as Seex Sidi Muxtaar yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér ba naaj nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéeyal seen Tuubaa suñu borom may ko lépp mu mottali ko jàmm di sant bu baax di gërëm ci taxawaay ci jataay bii ñu def te lépp ñu jublu ci waajal màggal gu tedd gii di màggalu Sëriñ Tuubaa bala maa dugg ci biir jataay bi rek danaa fàttaliwaat bu baax a baax li ma waxoon barki démb rek ndax alquran bu ngeen ca delloo bari na lool lu suñ borom di tudd di ko tuddaat loolu itam fàttali rek la tudd ndax dañuy wax ne suñu boroom bi mu bindee àdduna bind dee xalaxal mootool xeeta ndax dee sax la njëkk bind ci dund bi mu gaaralee malaayika yi dee ni mu diise ak ni mu mettee ak doomu aadama ni mu ragale ñu xamal ko ne ni nga wax ne doomu aadama noonu la bindoo de bu fi nekkee gis dee ci kanamam dana tiit ba du tal tala jaamu yàlla du tala dund suñ borom ne damay bind fàtte ak bànneex kon fàtte ak bànneex kooku suñ borom moo ñaare doomu adama nga xam ne ñoo lëkkaloo ak moom da koo bindaale itam ci bëgg lu rafet ak bànneex ak bëgg lu neex ci bakkanam moo tax itam képp kuy wax ak nit ñi jiitale yàlla suñ sa borom bi la bind te teg ci sa kanam Serigne Touba mi wax ak teg ci sa kanam Serigne Touba mi lay wax loo bul wax ngir lu neex kenn bul wax ngir lu naqari kenn fa suñ ko yéene suñu kilifa bu baax ga Cheikh Abdoul Ahad Mbacke dafa am fu mu waxoon sa wax ji de diglu naa ko ba mu jeex takk rafetlu naa ko ndax lépp le woo ci fayoo ci bopp wax boo ci leblee fay ci rek wax ji na yàqu kon képp kuy wax nay xool bu baax la muy wax tawee xool ña koy diglu jataay bi itam nañuy fexe ba muy gën a murite ndax jataayu Sëriñ war naa am nu mel war sa nekk jataayu puukare ak mbóorante war sa nekk jataayu loo xam ne boo ko jugee doo fa dolli ko dara ci yàlla ak Sëriñ Tuubaa ndax loolu taxuñu daje ndax waxtu nekk ñu ngi daje guddeeg bëccëg bu fekkente ne nag dem nañ boo wax ne ñuy daje ngir màggal Tuuba war nañu xool bu baax la ñuy daje sedd ci yàlla mi ñu bind sedd ci suñu Tuuba mi ñuy jëfal ndax bu dul loola rek àdduna yi kese la tax def te àdduna lépp lu mu dugg dana ko yàq yàlla ñu suñu bër musal Sëriñ Tuuba wattani ko doona ko ba tey mboolem ñi ma sa nekk moom wax nañ ne njaareem saa su masaan xëy ba dajale nit ñi ndax sëñ bi daa wax ak ñoom di leen fàttali di leen wattandikuloo di leen wax fi ñu war a jaar waaye saa su xëyee bu waxee ñoom guddi ga kenn amatul jàmm bu ngontee bu jógee ci jàkka ja wax ak ñoom kenn dootu talandelaw ngir fàttali lim leen di wax saarihu ila maxfiratin rabbikum saabihu ila maxfiratin rabbikum ak yu demee kon loolu war nañ ko fàttaliku bu baax te xam ne jataay bi jataayu Sëriñ tubaa képp dara yi àdduna ndax bu ci àdduna duggee rek li ñuy def lépp pertement doon te nit le Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké daa wax yaakaaram du ko fooyee te Serigne Touba dañoo jël suñ lépp jox ko àdduna ak àllaaxira kon wëri su ko jaawale wëri ko jaxase wëri su cee dugal lu ci bokkut yàlla nañ ci suñ borom musal ñi ngi sant nag bu baax a baax di gërëm Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo jiite kuréel gi nga xam ne ñoo doxal wàllu culture ak communication ak ni ma ko waxee woon démb ba liggéey bi ak si fii tey di rafet rafetlu taxawaay bu baax a baax di leen jot jottali cantuk sëriñ bi ndax ñun ndaw képp lañ ci sëriñ bi gërëm na leen ci bu baax a baax sant na leen ci mi ngi leen ci ñaan itam bu baax suñu boroom defe leen ci ndimbal defee leen ci tawféex te lépp looy def ki fi nekk sëriñ Tuubaa bu ko nangoo rek bee boo sam xel dal bu baax karaw bi may ñëw maa ngi ci waxtaan ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ne ma man de waxuma alal ji ñuy def ci màggal gi waaye taxawaay bi rek mooy li ma gën a yéem kon nag yéen itam war ngeen a sant bu baax baax te xam ne lu ci ndam rek lépp yéen a ko def te delloo lépp ci Serigne rek ndax xam ne euh, la Serigne Abdoul Ahad Mbacké doon wax ba muy taxaw di ñaan ku ne ci ginnaaw di wax amin sa amut ndax Serigne Touba. mat ne fàttaliku bu baax mësta woo kenn ne ko ñëwul ñu ànd dafa jug dëgmal boromam nit ñi gis ko mu doy leen ñu topp ci ginnaawam ba ñépp topp ci ginnaawam moo tax ci xew-xew yooyu fi amoon sëriñ Mbàkke Buso ba ñu ko laajee ne ko Mbàkke Buso yow li Cheikh wax naar ya ko doon laaj daari Mauritanie ndax ñoom lu ne dañ koy laaj ana lu tax lii sëriñ bi wax nga ànd ci suñ bàkki bu su ne leen ne ko ndax yow boroom xam-xam bu toll yow am na loo xam waroo ci ànd ndax seet dafa nekk ci beneen xaal yéen ngeen nekk ci beneen xaal suñ bàkki bu su ne ko te suñ bàkki bu su ku ne xam na ne senegal gi ku ko fi ku ko fi ëpp xam-xam néew fi mooy lan bu fekkente ne fenuñ te wuruñ lépp lu ñu war a wax dañ ko war a gëm ndax ñoo ko seetoon ba mu doon ñu suñ digg suñ borom kon lépp lu ñuy wax rek war nañ ko gëm kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di rafet luy du waxtaan yi bu baax a baax ndax lépp ci lislaam rek la jëm ak benn le jullit yi inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun kon li sëriñ Tuubaa daa wax rek daa wax ne yaar rek fi nekk inna ak ma sëriñ Cheikh wax na ko léegi ci xadis yooyu nga xam ne rasulullahi da ciy message ni jullit yi war a àndandoo war a nekk wenn say ba mel ne ay tabax ci biiru barab ci biiru ay biir ci biiru tabax biir bu ne dana xam ne yaa bàyyi sa morom kon jullit yi itam foofu lañu war a nekk war a mel ne jënn jëmm joo xam ne dafa composition ci ay cër kon loolu suñu borom moo ko santaane xam lay ne ngëmu kenn du mat li fii ni nga soppi sa bopp danga koo soppi sa moroom julit laa yuminu ahadukum xata yuhibba li axihi ma yuhibbu li nafsihi kon waxtaan yi ñu fi doon waxtaane ci huwiyatuna al islaamiya ñu defoon ci ay waxtaan démb ca ndaje mi ñu doon def démb yendoo ko muy ay atelier yu gudd gudd mu am ay nataay yu am solo sëriñ naa ak Serigne Cheikh ña doon lim nañ ko léegi loolu itam ñu war cee jàng ay leçons yu bare bare fexe ba bu ñu fi jógee allazina yattabi'una al-qawla fa yattabi'una ahsana bañ a nekk rek wax joo xam ne dañ koy day dañ koy day day jaar ci suñu nopp di jàll ndax ndaje yi kat bu fekkente ne dañ koy def ngir dajale nit ñi rek waaye duñ fi mën a jàng dara wala duñ fi jële dara wala buñ fi dajee ba jóge fi itam day mel ne leneen leneen lu ñu fi indi woon loolu day yàq jotaay te loolu war nañ koy xam bu baax a baax ndax nit yaakaaram du ko fooyee góorgóorlu ci itam ba tawsiyaat yi nga xam ne def nañ ko fi bu balaa déwén ñu fexe ba lu gàtt gàtt ñu fexe ba buñ ca mënta def lépp itam ñu fexe ba def ci ay jéego yoo xam ne danañ xam ne lii ndaje yi ñu defoon daaw moo ko jur ndax loolu itam mooy tax ndaje yi itam di am njëriñ. kon ñi ngi sant ñi ko seq ñëpp bàyyiwuñ ci kenn gërëm nañ leen ci jataay ak waxtaan yi rafetlu nañ ko bu baax a baax te xam ne kat képp koo xam ne yaa ngi ci kanamu ay nit responsabilité li ci yow ngay wax ak ñoom di leen wax yoon war a yoon wañ war a jaar di leen wartandikuloo lañ war a def kullukum raain wa kullukum masulun an raayati kon ñi ngi sant mboolem délégation yi bàyyi ko bitim réew yépp ak délégation yi bàyyi ko ci biir réew mi tàmbalee ci këri diine yépp waxoon naa ko démb sëriñ si Ahmad Tidiane di ko yóbbante ci waajuram sëriñ Abdul Aziz Al Amin ak mboolem turuqu suufiya ak association islam yi ci teewoon yépp rafetlu lañ seen taxawaay wuy si nañ itam li suñu borom daali woon ci alxuraan ne istajibu lillahi wa li rasul isa daakum lima ñu xam ne ñoo bokk luñ doon ñoo bokk luñ bëgg ñoo bokk fuñ jëm kon loolu bu ko ñépp déggee noonu te xam ne itam benn noonu rek lañu am muy lislaam muy muy seytaane mboolem ñu ñi di jullit benn noonu lañu am muy seytaane seytaane nag li yàqu ba noppi taxu koo jug li yàqoogut moo ko tax a jug kon war nañuy wattandiku bu baax a baax rawatina ci attahadiyatul aalamiya yi am fii jamono toll ñëpp xam ko adduna sépp xam ko xam ne lislaam ñu bari jugal nañ ko ngir yàq imaasam donte mënuñ ko yuriduuna an yutfiu noorallahi bi afwaahihim loolu nag suñ boroom moo ko garanté mënuñ ci dara ba àdduna tikki illa an yutima nuurahu walaw kariha al-kaafiruun wa yaaballaahu kon loolu jërut xelum kenn di ci ñaw waaye nag li ñu ci war ci sàmm ko ak aar ko war nañ ko def kon ñu leen di sant di gërëm ambassadeurs yi fi teew diinu yi itam Euh, ab lay Diouf Sarr mi nga xam ne moo Aly Ngouille Ndiaye ñoo fi ñëwoon teewal fi ak mboolem délégation bi ñu àndal limoon nañ ko moo mooy ci libaatee di gudd teewal fi président de la république Macky Sall di ko nuyu ci turu ak Cheikh Sidi Mokhtar ndax jataay bi ab jataay moo tax mu yónnee fi ba mu yónnee keroog ca mbaam bi loola doy na sëkk bu yónnee waatoon fii itam Macky Sall daa yaru daa baax fii itam. kuy am noonam yàlla ko na suñu Cheikh na loolu da yàq wax ji bu yónnee waatoon fii doy na kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ndax li ma waxoon barki démb rek lépp lu ñuy seere yàlla ak suñu Tuubaa tax ñu di ko def ndax gisuñu dara ci àdduna ndax Sëriñ Tuubaa defal nañu suñu tey defal nañu suñu ëllëg kon lépp lu ñuy seere rek. dañ koy seer ngir yàlla wa ma shahidna illa bima alimna li ma xam ci moom nag ci diggam ak sëriñ bi bu mbooloo mi teewee faaw ma seere ko ndax suñ kilifa yu baax ya tàmbalee ci ak cheikh Mouhamadou Moustapha wax naa ko ak cheikh Mouhamadou Fadil cheikh Abdoul Ahad cheikh Abdoul Khadir ak cheikh Salihu Mbacke cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ba ci ak cheikh Sidi Moukhtar ñoom duñ duñ duñ duñ weddi duñ njekk lépp lu leen def nit defal ci lu baax danañ ko seer ba ñëpp dégg ko ndax lépp loo xam nag ñu ngi koy wax seen du seen yite bopp ndax man mat naa ci seere Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké toog na maa moom bis ak président bi fi nekkoon Abdoulaye mu xamal ko ne ko sama sama leetar yi de nit ñaa ngi wax naan dafa bari waaye de suñ bas mii de seere la ci amu ci benn leetar boo xam ne mastaan yi di wax sama yite bopp mm-hmm. loolu maa ko fekkee ak Cheikh Sidi Mokhtar mii itam bi mu fi toogee ba fa président Macky Sall njëkkee ñëw la mu ko wax mooy dama bëgg nga yërëmal ma néew doole yi ma béykat na maa seere itam ne lenn ci lu jëm ci boppam lenn rek mooy loo xam ne mel na lu jëm ci wàllam te moom ñëpp ko bokk la suñu saa yi waxoon na bu juf mooy ab tëbi yi ci des yëpp yëpp yëpp yite doomu aadama yi képp la te xamewu ci murit xamewu ci tijaan xamewu ci leen kon nag man mi nga xam ne maa ne ci diggante bi nag te léeg-léeg ngir jafe lool loo xam ne sax di su ko mën wax ci rajo sëriñ bi yónni ma ko ci moom mu def ko sacrifié wu ci ngir jëmmam loolu faaw ñu leeroo ko nit ñi bañ xam ko kon sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm baax di ko ñaanal suñu borom dimbali ko ba mission yàlla mottali ko ci barke Euh, fi may jeexale nag mooy li ma ubbee woon rek mooy ñu xam jataay bi li ñu fi dajale ak xam liñ ci war a jàng ci ay leçon ndax kunu maal xaqi mahma kallafakumul amru ànd leen dëgg ak leen ci mën a fekk Sëriñ Saliou Mbacké mas naa wax ñu fi ñëwoon ci ay jamono di di fekk ñaari ñaari xisa yu am solo la sax ndax waa kër Sëriñ Tuubaa dafa am fu ñu newoon benn bi Sëriñ Abdou Khadir ña nga xam ne ñoo jiite woon délégation ba jiite woon imaam yi ñi ngi dund mënuñ ko wedde ci kanamu nii ñëw nañ ci sëriñ bi ne ko dañoo taxawal ak mbootaayu lislaam bi ngir bëgg defaraat lislaam bi Sëriñ Abdou Khadir ne leen dem leen kon fa lislaam yàqoo ngeen defar ko waaye fii lislaam yàqoo ko fi sëriñ Saliou Mbacké lu mel noonu am biñ dikkee ci moom sëriñ Abdou Khadre sax da leen wax ne bokkoon na ci li sëriñ Touba fàggul ak moom bii di ayaali bi la abukaay sëriñ Saliou délégation boobee ñoo ñëwaatoon ci moom ñan ña boo fekk muy sëriñ Touba biñ dikkee am luñ koy wax ngir bëgg bennoo mu ne leen bennoo gi di ci nga ñu fekk ndax sëriñ Touba. diiru muy ne ci kaw àdduna jëpp amul jenn yitte lu weesu bi julli di àndandoo nekk benn bu ngeen gisee mës a woote ab tarixa daana jël wirdu at tarixatul xaadir yi ak wirdu at tarixatu tijaan yi di ko joxe boo delloo ci ay mbindam bari na lool fu muy tuddi ak Cheikh Abdou Xaadir fonk leen lool danaa ci dellusiwaat Cheikh Omar Fouti yu mi nga xam ne sax seen ginnaaw la ñëw dégg ngeen bay yu mu seere ci moom ci aljawharu nafis aljawharu nafis wax ne wa kaana sha'nuhu ka xawli umara man bittu xaawal ani qad ta'azzara wa kun iza daxalta fi salaati kamisi saxsin kaana fi lufati kon Serigne Touba dafa yaatal mbir mi Serigne Saliou wax leen ne leen nag lii ngeen bëgg de ci ngeen ma fekk ci laa nekk waaye nag damaa bëgg ngeen xam ne li islaam santaane rek ci lañ nekk mooy suuma li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma aleykum nag mooy na ngeen woor bu ngeen ko gisee bu ngeen ko gisut na ngeen matal bu fekkee niir yi da ko muur nag boobaa li ñu lislaam sant mooy matal ngeen matal ne ko nag yaari yëf nag danaa la ko ci xamal mooy ruusuñoo fay bor lii ñu nekk soxlawuñ ci wéttal kon li am solo mooy nekk ci dëgg wéet ci ak wéetlu ko ci ñoo waree am ndax mu ga rek mooy la am solo ndax bu ngeen dool delloo ci alxuraan yéefar yi ñi gëmul suñu borom dañ daa reetaan loolu jullit yi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi waaye tey ku xool lislaam ni mu amee doole ak fi mu nga xam ne dëgg rekk mooy li am solo kon yàlla nañu suñu borom dimbale may ñu ak dégg ak topp may ñu itam ñu xam bu baax li ñuy def xam itam ñun ñi njabootu sëñ tubaa xam li ñu Sëriñ Tuubaa defal ndax Sëriñ Tuubaa kat mas wax Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil ne leen li ma leen fàggul mooy ku ci dund ku ci dund am teraange àddina ak alaxira ku ci faatu fàggul naa la àjjana waaye nag ni ngeen def ba ba ne ci àdduna du ma ko fàggul kenn ndax àdduna jël lu ma fàggul kenn taxuma xëy te du ma tax a gont kon war nañoo góorgóorlu bu baax góorgóorlu gii la ci jiitu mooy sax ci ndigal suñu borom yi te bàyyi ay tëram ndax loolu mooy li tax ñu indi ci àdduna afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun nañu xam ne indiwuñu ci àdduna ngir fo indiwuñu fi ngir caaxaan dañu fi indi ngir mission mission boobu nga xam ne mooy inni jaalu fil ardi xalifatan ba malaayka yi waxanteeg suñu borom lañu waxanteeg moom ata jaalu fiha may ma yusudu fiha wa yashuku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak qaal inni a'lamu ma la ta'lamun ak laneen ca laneen ca sunu boroom wax ak fa yëfi mujj jeexale ko nag ci benn dénkaane boo xam ne Sëriñ Tuubaa ko defoon tëje ko wax ji dafa waxoon ne mboolem ndigal yàlla yi ndigal lu ci ne sàllu yërmande la woo xam ne buur bi moo ko yebal di ko jël see jifi jàmm mu ne sàll woo ci jàpp nag defar ko te te koo bàyyi yàgg-yàgg dana dellu ca nguur ga te suy dellu dana la yóbbaale mu ne dajale sàll yépp nag sàll bu ci nekk la ca war nga def ko ca kenn la ko kenn rek la ko sunu borom jagleel muy Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul moom rek sa kem kattan ngay jëf waaye yéen digal naan lu ngeen mën a jàpp ci ndigalu yàlla yi na ngeen ci boole yett yett yi ma leen di bëgg a wax muy attawbatu nasuuh ak shukurullahi ak niyatul xayri mu ne ana luy tawbatu nasuux mu ne mooy tuub gu sell mu ne téere yi sax danañu ko misaal ci am wàcc waaye misaal mu ci dër la mooy ndax wacc wàcc wéedu ca delloo borom wéttilu ko du ca delloo mais tuub gu mel nii ma wax rekk nag moo ci lislaam jaam bu judd di ñaawal ak a yàq di dund ba am téeméeri at xëy yebal tuub gu mel nii ma wax tuub ga dale fa mu ko yebale di defar ginnaaw ba bis bu mu juddoo bàkkaar du fi diggante bi mu ne atabat na fa rek moo jóge loolu ci lislaam mu ne lool yi nag ana tax moo xam leen ko dëgg moom ak fu mu mën a jóge noonu mu mën ci Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ci xadisam bu tedd ne man taaba xufira mu dugg ci shukurullahi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ànd ak cër yi nekk ci lu neexul borom bi ne googee cant du cant ga ñu tàmm mu ne xam ngeen cant ko na mu demee mi ngi mel na buur boo xam ne dafa moom réew mi xëy wóote ba ñëpp daje mu ne nangam ji tere naa ko nangam ji digle naa ko mu ne am ku ne ñokkat nag ca mbooloo ma jaar ca la buur naa ko caay waa ji la buur bi màkk sant mu ne bu buur ba baaxee moos ba nanguwut la mu ko moyoon itam boogee cant duggee bi ñoo leen cant gi ñu taaw moo de jaam bi waxtu wu wëlëf ne yar cim xelam na daal di xam ne suñu borom waxantaaw ne ko yëg naa ko alimu bi saadi sudur daal di koy waxi ne ko wala tokku minal xaafiliin wartuloo bokk mu ne loolu racc xelam bu agsee ci cëram yi mu ne ñokket ngir jëm ci lenn ba mu ne ñokki jug saa borom waxante naa mu ne ko la kibla goo jub rek jëm yàlla nga jàkkaaru yow te yàlla buur laa boo xam ne ku nekk war na maa jàmm fu nekk wari sama faa jàmm nekk wari sama yaa jàmm tama njaali digal naa ter na ter naa la fi kon nag wala tukunul xaafirin wattu lu bokk ci way sàggane mu ne foofee moos ana dafa rek sant yàlla mooy mu fab cëram yi génnee ko ci lu neexul borom te dootu ko ci dugal mukk fab cëram yi ko ci lu neex borom te dootu ko ci génn mukk dootu nangu menn moroom jaamu dikk génn ko ci loolee su ca saxee ab diir nag la ko borom di jëkk feeñoo di ko yëg na di ko yëgal ne yëg naa la da ko def sullital xéewal goo xam ne xam na ne xéewal googee mënu ko jox boppam moo xam ne menn moroom jaam mënu ko jox xew googu mu xam ne yàlla buur rek moo ko mën a jox xew googu te moo ko joxit mu ne caay waa ji buur bi la sant moo ne fa foofee moos saa borom waxante naa moom bu mu yëgee ak bu mu yëgu ne ko fii yaa ngi ci li nga nekk de mu nekk ci li mu nekk mais loolu yi nekk anam tax ma wax leen ko dëgg moom ak fu mu mën a jóge noonu mu ngi doon jóge ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te dafa wax ci teereem ba tëdd ba na la in shakartum mu jeexal ko niyatul xëyri mooy niyatul xëyri mooy la nga yéene sa bopp danga koy fexe yéene sa moromu jaam yépp mooy loolu ak waxtu ko jaam bi defee ba muy dëgg ci moom da koy day sotti ko teraanga wër ko kenn dootu mën a xotti saatiram mu mu ne niyatul xëyri garab la goo xam ne la nga xam ak la nga xamul lépp nga ci kaw ngay dikk ba faroot garab ga ngir yittewoo ca meññeen ma ngay yuutu ba fa sa loxo yam te jëfandoo ko te jotuloo ko loolu mooy jëf ji kat saa borom laay la wax la ne la wutalub lonk nga lonk lépp fekk li fekk li fi nga mu ne loolu moo yéene kat ci waxtu woo xamee ne nit ki génn àdduna ba ñu teg ko ci kuusu bàmbeeram dana seen niyatul xayri ci biir bàmbeeram mu di ko nit di wax naa ko man mi nga doon yéene te mënuma doon jëf saa borom sànq moom maa ngi nii maa fi def sa wét maa fi def lépp loo soxla ne ma taba taba saq dañ fay soxla lekk def soxla naan taba saq yaa rek moo fi xew maw ak fuuyu may ndax ki bari day fuuyu ak la ndax xamul kenn la coobare boobu di te ku jeexee maw rek moo sos awul may amul sarfe waxtu woo xam ne saa na namu na àdduna jeex ba dara desatul dana yebal jën jëm mu taxaw xaaju waxtu wu xaajoo suuf si day toj roo yépp génn di diglu ndigal aji wax ja wax ne barab sàm barab sangam lañ leen soxlaa te ñëpp koy déggandoo kenn du ko jot li sa morom mooy te barab boobee ndeem jege na ndeem sori na dañ fay soxla war waay te am na ñoo xam fa ñuy dekkee ak fa ñuy daje yi ñii seen ab gaawaay mel na na ngelaw ñii seen gaalaa mel na oto bi daw ñii ñii mel na fas buy daw ñii mel nit ku yàqu mu ne foofee borom niyatul xëy dañ koy soppi niyatul xëy lalu kanafe bu amul am xel waxtu yëkkati bopp borom yëkkati ab tànkam mu yóbbu ko ba fa mu àgg waxtu woo xam ne saa borom jub na ba jaam ñëpp daje dana wax ne ana labraar yi ñu féete ak wàll labraar yëpp ne dëng ñu ak wàll muy ahlu islaam may na fu jaar yëpp féete ak wàll fu jaar yëpp ne dëng ñu féete ak wàll mu daldi yëkkati lislaam muy kenn gurus samp ko ci diggante labraar yi ak fujjaar ne yëkkat kenn ci labraar yi ko ba ñëpp di ko seen mu ne saa borom yóbbal fa jëm joxam taar boo mu amee ak yéer yi mu sol na mu rafet xet ga muy xeeñ na mu neexee na mu ma taggaate mu fekk jëmm ji foofee ñëpp di ko seen moo di ko kañ di ko tagg di ko kañ di ko tagg ba jëmm ji naa waaw xanaa lii mooy aljanna gi ñu suñu borom doon del ci àdduna ko déedéet bokkut ak aljanna mu xadamatu jann rek aljanna waa ngi ci ñu daal di sempi keno lay soppi keefar kenn lu ñuul samp ko ci diggante labraari ak fujjaari ne yëkkat kenn ci fujjaari bu ñëpp di ko seen saaboro yebal fa jëmm joo xam ne na mu ñaawe yi mu sol mu ñaawe xet ga na mu naqaree na mu mën a xaste na mu mën a ŋàññaate mu fekk jëmm ji foofee ñëpp di ko seen mu di ko ŋàññi di ko xas di ko ŋàññi di ko xas ba jëmm ji naa waaw xanaa li mooy annaaru bu ni suñu borom doon dëkkoo jàdduna moo ne ko déedéet boo xoolee annaar mu naa rek de annaar waa ko defee sunu bo sorom sunu borom bëgg jaam ji delloonte àq yi kenn ku ne ña nga amee la àq ci àdduna te mënu laa te mënuñu laa bàyyi ñooñu ñëw ne la jox nu la nga na amee loolu mu ne dafa seen jëmm joo xam la ma amee la ma amee jur ba mu amee ci ay xasan dafa bari loolu ñëpp di ko yéem am te lu may fay ko dina soddan ci kaw mi kenn ku nekk ne jox ma la nga ma ameloon jox ma la nga ma ameloon muy jox muy fab di joxe di fab di joxe ba deseetu dara te ñu ko doon fay jeexul malaayika yi li doon lijjanti dem fa suñu bonoo ko jaama gi boo xam ne la mu am woon ci ay xasaar bari na lool te fay na ko lépp ba jeexal te ñu ko doon fay jeexul suñu borom wax leen ne leen ñooñee mu ameloon te mënuñu ko bàyyi nañ fab ci seen ñaawteef jox ko ñooy fab ñaawteef ñu di ko jox mu di ko jóor foofee ñu di ko jox mu di koy jóor foofee ba jóor ba delloo tollaat na mu toll sëriñ bi nag wax ne na ngeen góorgóorlu ci fàgg fàggandiku dund ca teel te wattandiku walaan mais loolu yi walaan ko def walaan nag moo dangay defar say sàq simb ba takk sàq yi ñëpp ko si ñëpp di seen jàkkaan dugg ba nga fa fekk jaar nga ko suuf te dara nekku ca loolu yi walaan koy def bu fekkee ci mujj bis ba ca loolu di xewe ci misaarum ndem bis la timis jot sunu borom daal di ubbi bunti aljana ñëpp wëlbatiku jublu ko di genn siraat dox ci diggante bi te kenn du dem te jéggiwoo ko te ci lëndëm lay doon ak sewaay ba ñu ci wax ak ñawaay ga ak yëngatu ga mu yëngatu te kenn du dox ci ku dox ci saa tawaroon ci jahannam yam fa ku fóorleem jàll ba fa ba fa mariyam bu yam fa foofee nag borom niyatul xayri dañ koy soppi niyatul xayri lalu kanafe bu am am xel waxtu boroom yëkkati ab tànkam mu yóbbu ko ba mu àgg kaw sar mu sang fa ndax xet ga ñuy jëli barsax waa arjuna seexlu nañu ko da leen di taxawaccu bu demee ba dëgg man buntu këram nag dana seen niyetul xëy ci buntu këram mu di ko nit di ko wax naa ko man mi nga doon yéene te mënoo ma doon jëf saaburum sàgg woon maa ngi nii loolu nag fu mën a jóge noonu mi ngi nu jóge ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te dafa wax ci xadisam bu tedd ba niyatul mu'mini ablaxu min amali dégg ngeen ba tàyyi nag kon dama fàtte sant Serigne Bakki Faye moom mi nga xam ne bi ma joxe ndigal Serigne Abdou Lahad moom laa woo jox ko ndigal ci liggéey bi baas bi lépp moo ko def addi Serigne Touba taxaw ci taxawaay bu rafet te at mu jotit noonu la ñu ngi koy seeral cantuk Serigne bi ak ngërëmam di ko ñaanal ci barke Serigne Touba li Serigne Touba woon ci ne Serigne Touba moom kenn mënu koo nax képp ku koy ku koy nax rek sa bopp ngay nax waaye kenn mënu ko nax waq di xawaaij allasina daamoom fii xidmati wa hablahum maram ñaanoon na suñ borom ne ko na nga faaj aajo képp ku may liggéeyal neewoon na itam képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi may liggéeyal na nga dox diggam ak lépp lu ko nar a gàllan ko kon képp koo xam ne jëf nga ci mu néew koy bari ndax Serigne Saliou ko daana wax ne addiya moo ko doomu yam mooy ab caabi xeebu ko ca dara ku ci ne sa jëf rek ci la suñ borom di àtte kon lu ci waa jëf lu mu néew koy bari yàlla koy suñu boroom ful ba mu nekk man jaa bil xasanati falahu ashru amsaliha kon ñi ngi jeexale foofu kaddu yi di xam ne rek la naaru mursali boo xoon ayal wara fahmu maa li cheikhi min mu ne Sëriñ Tuubaa li ne ci moom ci ay xar baax ak i xéewal ak i may diggam suñu borom ump na mbindeef yëpp bu fekkonte ne lu nit di mën a xam la ñun waa Gànnaar ñu xam ko bu yàgg wasalaamaaleykum wa rahmatulah